buy def benn reportage dina ko jox àqam bu mët sëkk daal di koy def. ki Kiné nekk na nit ku baax nekk professionnel bu mag boo xam ne wax dëgg yàlla fukki at ak lu ko ëpp def naa ko moom rédaction télévision Futurs Médias suy def reportage dina ko jox àqam lépp lu muy def dina ko def ci wàllu journal ci wàllu présentation nekk nit koo xam ne moo dem boole rédaction bi te buggul koo xam ne da koy mere. nit ku baax koo xam ne boo ko romboon sax tey nii mu ne li ma la waxoon dem ba fara moom moo tax ni nga nuyu ma man de naa la nuyu bëggul kenn am problème bàjjonu gox lañ ko dem wax ci rédaction bi mu nekk jullit bëgg Serigne Abdou Lahad Mbacké te yemaloo ko kenn kon nag nit ku baax mu ngi noonu une grosse perte la ñu am au niveau du de la rédaction de TFM nit koo xam ne nitu kese la bëri kaf moo yor ambiance ba rédaction yàlla moo tax ñëpp a sëngeem jamono ji tey daal ñàkk nañ ko mag ci ñun